xoxotal ay buntu xatal ba ci ay kàddu yu ñaaw la ñu jëmle seen nit yu ñuul nekk foofee ca Tunisie ginnaaw rek bu seen njiitu réew mi yëkkatee ay kàddu jëmle ko ci ñoom mu nekk ab situation bu ONG bi di Horizon sans frontières di ñaawlu Boubacar Seye jàppee discours président tunisien bi ab déclaration de guerre. mu nekk kàddu yoo xam ni yoo xam ni damay wax ni sax offense la insulte la à la race noire. kàddu yoo xam ni ma jàpp ni aussi c'est un appel à la rupture des relations diplomatiques ci dëkkam ak les pays africains dama jàpp déclaration de guerre sax la li nekk ab gulet ci Afrique loolu la waxal président Horizon sans frontières di tuumaal gouvernement italien vu la proximité la position géostratégique de la Tunisie mu nekk porte d'entrée vers l'Italie. Avec l'arrivée de l'extrême droite, am nañu un pressentiment comme quoi que ab promesse la ci gouvernement italien dàqal ni ñu ñuul ñi nañ génn sa dëkk ça après ñu xool ñu ñuy def ak yow. ñii di njiit africain yi dañoo war a rek taxaw xeex kii di président tunisien bi te nag dañoo war sax saisir ñii di instance internationale yi. dafay laaj quand même nag euh, les états africains ñu jóg wane fulla li ñu war a njëkk a commencé moom mooy woo seen ambassadeurs de relations commerciales, diplomatiques, politiques et même économiques. Saisir euh, les Nations Unies, dañu war a saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, saisir euh, le tribunal pénal international. moodu moodu yi nekk foofee ca Tunisie nekk ci ay jafe-jafe Horizon sans frontières di ko ñaawlu di woo rek nguur africain yi ñu booloo xeex kii di kay Saied mu ñu jàppee ab dictateur.